salaamaaleykum mbokki téléspectateur u Xewel gi TV ñu ngi ànd ak yéen fii ci dëkk bu sell bi di Taïba Niassène ci guddik Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiallahu taala anhu ñu nekk ak sunu imam al muxaddam imam Thierno Mbow bàyyee ko ba Touba Mouride Casamance bëgg a waxtaan ak moom al imam asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu aleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu euh, bëgg nañu Euh, imam nga fàttali nu tour bi donte am lu nu ci xam waaye kan moy imam ak fan nga bàyyee ko ba ñew ci euh, magalu guddik maulana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu jeuf abubakar sama tour moy Thierno Abdoulaye Mbow ma ngi joge ko Touba Mourid Casamance euh, joge ko fa tay ngir ñëw Taïba Niassène Madinatu Cheikh nga xamne moy Cheikh Euh, nga xam ne ci la ko woykat ba doon waxee ne rëy ja sawqu kullu daa inda fii nii mawlidu sayx inda Tayba Ñaseen Tayba Ñaseen googu tey ci laa ñëw ànd ak délégation ànd ak daayira bu am solo ñu bàyyi ko Touba Mouride ngir ñëw tey Tayba Ñaseen ngir màggal juddu Mawlana Seex al Islam El Hadj Ibrahima Niass radiyallahu taala anhu. imaam al muxaddam kan mooy euh, Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu ak turamu màgg woowee di Seex al Islam. muy tur bi nga xam ne néew nañu dugg ko dégg ko ci keneen ci moom rek la koy dégg ak turam mu sell woowee ci wolof ñu naan Baye Niass lan mooy sababu tur yooyu. macha allah barakallah euh, laaj nga ma laaj boo xam ne laaj bu compliqué la laaj bu jafee tontu la parce que kuy Mawlaaya Cheikh Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallaahu taala anhu boo ko laajee da ngaa laaj laaj bu rëy laaj bu mag boo xam ne kenn mënu koo wax euh, kenn mënu koo bind. bu ñu doon taalif ay mu jëlla daat danañ jeexal xalimba yi danañ jeexal daa yi te duñ xamle kan mooy Mawlaa Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass ni ko Cheikhaani waxee taalibeem boobu nga xam ne mooy Cheikhaani mën na àpp bi koy tagg ne na ko yow yaay borom maqaama mi nga xam ne yow borom maqaama mi sax sa maqaama mi humpu la kon kooku dëgg dëgg bu ñu ko bëggee taarif xanaa ñu def ko taarif basid rek benn euh, taarif boo xam ne bu simple la wax numu tuddu numu juddo kuy way juram fu mu jange rek mais kuy cheikh l'islam haqiqat cheikh l'islam mahiyatu cheikh l'islam deug deug wax ko lottu nañ ci waye luñ ci lottu lottu dañ ci wax liñ li xam liñu xam moy mu ngi tuddu Ibrahim nias radhiyallahu taala anhu comme mom nim ko tarifé ku bari ay tour la arab yi dañuy wax ne kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma nit ki bari bari turum day tektelane mom dafa mag kon motax mom Ah, mu bëri ay tur tuddee nañ ko tur yu bëree baree baree bëri waaye moom moom moo wax ne moom Ibrahima ñas la tudd te loolu dinaa ci nettali rek benn histoire bu gàtt boo xam ne dégg naa ko dégg naa euh, benn waay euh, dafa mosoon am jafe-jafe jànd ko mat ci waxin yónni ko ci baay diñ koy ne ci baay baay ne ko tuddal suma tur tuddal suma tur mu naan baay baay baay mu ne ko da ngay dee de man tudd moo baay de man Ibrahima laa tudd. kon moom Ibrahima la tudd kon ci xam le turam moom Ibrahima la tudd euh, dëkk Sénégal dëkk Sénégal waaye juddoo Taïba Niassène ba Taïba Niassène yowmul xamis ci ngoon gannaaw tàkkusaan te loolu ay junjëng ci yoo xam ne euh, ojaale bi ñu nekk mënuñ koy faram mënuñ koy leeral aussi euh, waxtaan bi ñuy waxtaan nii mayuma ma leeral mbóot yooyu waaye daal ci gàttal bàyyi mu ngi juddu alxames juddoo Taïba Niassène ci tàkkusaan te loolu mu ngi wane màgg ak Taïba Niassène ndax Mouhamadul Busiri bi mu tagg yonent bi noonu na ko te tabaha bi kel usuru wa tasmu bi ka aliyaaw doonaha aliyaaw jamono yi ñu ngi puugaroo sa juddu yooyu yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono yi ñu ngi xëccoo sa sa sa sa sa tolla tolloog sa juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki doon tagg Cheikh Ahmad Tijaani nga xamne moy hasanu tariqatu tijaniya bi moy tagg Seexna Ahmad tijani nee hasala mafqara mafqar al ula xiina wulit bi ayni madi zabi bi fadliha shahid nee aynu madi juddo gi fa Seexna Ahmad tijani juddo moy wane aynu madi dëkk bu am ngeenel la kon nak ñun tamit wax dëgg yàlla Sénégal am na ngëneel Afrique am na waye waaye Taïba Niassène tamit am na ngëneel ndax juddu gi fi Mawlana Cheikh Islam juddo rek moñu waxal ne Taïba sen dëkk la bu am ngeenel laaj nga ma lan mo waral turu baye lan mo waral turu bay lan mo waral turu Cheikh al Islam radiyallahu taala anhu ndax ñop dañ nañ ko bay bay bay lima ci xam tam man ko faram fanché tam leer moy kilifa yi kilifa gi ci gëna mag moy bay mam sax cër biñ jox bay sax joxuñ ko mam parce que mam dañ ko mamé ya donte mom mo jur bay kon bay moy kilifa gi gëna mag te bay Ibrahim radiyallahu taala anhu biñ ko yàlla di xamal ci alquran daf ne millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha top len son yonu bay Ibrahim kon nag moom bu ñu ko tuddee Ibrahim ba pare ñu naan ko Baye Baye te turu Baye am na histoire xëy na euh, du ñu mën a guddal bay indi histoire boobu waaye turu Baye tamit am na histoire waaye daal ci gàttal xam naa ne moom kilifala la ci awliyaa yi gën a mag ci la bokk te loolu li ci def tegtal mooy foo tuddee Cheikh Ibrahima Alaaji Ibrahima Niass dafay mel ni ci jamonoy junay du la woon ci jamonoy junay du ci jamonoy awliyaa yu njëkk ya doo yaakaar sax ne ci Euh, benn waay la boo xam ne ay 1900 la juddu te loolu ay jalooreem ay liggéeyam ay injaasaatam ci diina moo ko may loolu. turu seexul islam alaaji Ibrahima Ñas radiyallaahu taala anhu kooku titre la. tur la ci diina ndax dafay am fooy toll ci xam-xam fooy toll ci liggéey fooy toll ci wilaya ñu tuddee la seexul islam alaaji Ibrahima Ñas radiyallaahu taala anhu te tur wi tur wuyu borom la bëri nañ fi ñu wax seexul islam mais moom seexul islam moom gi. dafa dëppoog li mu liggéey waaye dafa dëppoog li mu jàng waaye dafa dëppoog li mu jàngale dafa dëppoog tamit li mu liggéey ci lislaam Seydi Aboubacar jërëjëf al imam yaakaar naa li nga leeral ci sang bu tedd ba di Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye radiallahu taala anhu am na solo waaye ñu gis ne moom Baye euh, bi mu taalee faydu bi euh, taalal na ay góor yàlla yoo xam ne adduna wërngal këpp kenn dootu leen fàtte Euh, ñu bëggoon rek ñëw tuuti ci euh, jëmm ju tedd ju sell di Seydina Aliou Cissé radiyallahu taala anhu ànd gu rafet gi ma àndoon ak Maolana Cheikh Ibrahim te wolof ne loxo bu yàggee ca pax jàmm la ca fekk ak seenu diggante seen relation euh, naka la demee woon al imam al muxaddam imam Abdoulahi Thierno Mbow bëggoon nañu nga dikk ak ñun ci loolu. alhamdulilah maa ngi sant yàlla di julli ci yonent bi yoon beneen yoon sant yàlla ci li nga ma laaj te borom xam-xam yi dañuy wax ne inda zikri saalihina tatanazalu rahamaat bu ñuy waxtaanee saalihina yi yërmaane yàlla day wàcc kon tey ci bisu Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass radiyallaahu taala anhu ñuy màggal juddum di ko màggalee fii ci tey Taïba Niassène sama mbokk sama xeet ñëw di ma laaj ci Mawlaaya Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass kooku dama ci am fierté te dama ci am mbégte. bu baax a baax di la sant gërëm bu baax ñaar ñooñu seen àndoo ci yàlla euh, mënuma ko leeral dama ci tuuti waaye ñaar ñoo xam ne dañoo àndoo ci yàlla yàlla rek boole leen ñu àndoo ci yàlla rafetal kandoo gi rafetal kàndoo gi su ma ko waxee mooy Mawlaaya Seex al Islaam Alaaji Ibrahima Ñas radiyallaahu taala anhu rafetal na kandoom digganteem ak Mawlaaya Seydi Ali Cissé ci lépp loo xam ne sëriñ war na koy taxawu taalubeem war sëriñ war na koy jox taalubeem sëriñ war na koy jëriñ taalubeem sëriñ war na koy xamal taalubeem sëriñ war na koy war dafay àggale ab taalubeem àggale na ko fa Baye Aliou Cissé radiyallahu taala anhu moom itamit àndoon naag Mawlaay Seexal Islaam Alaaji Ibrahima Ñas radiyallahu taala anhu kandoo gu rafet goo xam ne lépp loo xam ne taalube war na koy àndu ak sëriñ ci tegg yiñ ci yar ci topp ci jëriñ ko dégg nga ci jox ko boppam jox ko bakkanam jox ko roxam jox ko njobootam jox ko xalalam jox ko léppam rek bàyyi Aliou Cissé radiyallahu taala anhu ànd na ko ak Mawlaay Seex al Islaam Alaaji Ibrahima Ñas muy ànd goo xam ne ànd gu yàgg la ci seen i maam la diggante Baye mm, ah, Baye Mawlaay Alaaji Abdoulaye Ñas radiyallahu taala anhu ak waajuru Baye Aliou Cissé kandoo la goo xam ne kandoo gu yàgg yàgg yàgg waaye nag kandoo goo xam ne it kandoo gu am meññet la kandoo gu rafet la ndax gis ngeen li ci juddoo léegi rek gis gis nañ lee Cheikh euh, Mahamadoul Mahi Cissé gis nga waxtaan wi mu def dégg euh, jumaa yi Medina ji nga xam ne ki koy jiite mooy Mawlaaya Cheikh Ahmad Tijaani Seydi Ali Cissé nga xam ne moom moo koy jiite wuuti ca magam ju baax ja Seydi Imam Hassan Cissé radiyallahu taala anhu wuuti ca baayam Mawlaaya Seydi Ali Cissé radiyallahu taala anhu muy calala goo xam ne calalaak mbaax la calalaak leer la nga xam ne warisuhu kaabiran an kaabirin kii dafa juddu fekk ci ay baayam baayam tamit fekk ci ay maamam muy kandoo goo xam ne jur na barke jur na leer jur na wilaaya jur na xam-xam jur na njub fa tabaarakallaa loolu rek moo am moom la amoon lu may wax ci diggante ñaari kuy yooyu nga xam ne yàlla moo leen boole ñu àndoo ci yàlla. jërëjëf al imam yaakaar naa ne euh, loolu leer na fii ci xéwal gi TV xanaa rek di la laaj Maulana Cheikh Ibrahim xam-xam bu rëy bi mu yor ak maanaam bëgg yàlla gi bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu waxee ñenn ñi jàpp ne jàngewul ci réew mi ñenn ñi jàpp ne ci réewi naar yi la jànge muy werante wi am ci biir nit ñi bu bëggoon nañoo dikk rek euh, moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu euh, fan la jàngee fii ci Sénégal wala biti réew la jàngee. alhamdulilah laaj nga ma laaj boo xam ne du ma ci tontu lu dul li ci bay tontu nee na moom Baye moo ko jàngal loolu mu ngi ko doon tontu borom xam-xam bi ko doon laaj ci Arabie Saoudi xajam googu mu xajoon te buur bi invité woon leen. reer invité boroom xam-xam yëpp ñu invité waale ko ci waxtaan xewoon fa waxtaan woo xam ne boroom xam-xam yi ñoo doon waxtaan kooku bàyyi nettali na ko ci kaseet yi ñëpp déglu nañ ko bi ñu joxee boroom xam-xam yi ñuy wax di gërëm buur bi di sant buur bi comme rek niñ ko xamee ba yegg si ci moom ba dawrum ñëwee mu wane ne waaw ñu ngi gërëm yàlla yàlla lañu war a njëkk sant yàlla lañu war a njëkk gërëm waaye buñ gërëmee yàlla sant yàlla tamit. war nañoo gërëm yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci moom ci la yàlla wàcc diini lislaam gi tax tey ñu dajee fii di xaj tey ci ci barki yonent Yàlla Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam ci la nguur gi taxawee ba kii nekk buur di ñu invité du ñu defal teranga ji ci barki yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu invité ñu ndax invité nañu ci xam-xam ñu waxtaan ci xam-xam te xam-xam boobu yëpp mu ngi juddoo ci barke yonent al Muhammad sallallahu alayhi wa wax fa waxam ju am solo jooju ba bi mu benn borom xam laaj ko ne ko yow xanaa yow nooy jàngee xayra te man xaw ma la parce que ñoom booba jàpp nañ ne képp ku am xam-xam rek xayra nga war a jàngee bàyyi na ko man mosumaa gis lazar comme ni mu koy waxee man mosumaa dem man man man jànge wu ma xayra man sama baay moo ma jàngal kon moom baayam moo ko ne baa bindam bu mujj baayam moo ko ko jàngal radiallahu taala waxuñ ne lim xam yëpp bàyyi moo ko xamal radiallahu taala woon waaye sañ nañu wax ne bàyyi moo ko jàngal ndax dégg nañ ci moom mu ne sama bàyyi moo ma jàngal naka noonu du moom rek waaye ay doomu baayam yëpp baayam moo leen jàngal ndax moom li doonoon euh, yoonam ci tarbiya mooy ni mu bëgg a ak njabootam bëggut beneen loxo dugg ci looloo taxoon mu téye ay doomam yëpp yar leen jox leen tarbiya is islaamiya jàngal leen jàngal leen alquran jàngal leen xam-xam dégg nga macha allah ñoom ñoom ñu doon ay nit ñu baax nit ñu barke nit ñu am xam-xam nit ñu jub nit ñu am wilaaya bu ñu waxee. nga xam ne xam-xam lañ wax buñ bindee nga xam ne xam-xam dëgg lañ bind doo xamee li ñu wéy ak li arab yi wéy dégg nga te loolu du moom rek waaye fa tabaarakallaahu doomi maa laaj Abdoulaye Niass yëpp noonu la ñu mel tabaarakallaahu ci xam-xam ci wilaya ci njub ci mbaax njàngam baay daal ci gàttal baayam baayam moo ko jàngal beneen jàngalekat jàngalu ko beneen sëriñ jàngalu ko moo tax waykat ba bi mu koy way nee na masta jog kër baayam baraw ci lislaam bu kañaan amutoon lii de doy na ak mbaax radiallahu taala an waaw jërë ngeen jëf mbokk yi ñu àndoon nag al imam euh, Thierno Mbow euh, féeto fee ca diwaanu Casamance di al muxaddam di borom xam-xam bu sell yaakaar naa bi ngeen ko dégloo bég ngeen waaye muy jàmbaar joo xam ne bay na ci lislaam rëy waaye jàmbaar joo xam ne dañul di bay ci toolub Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye kon al imam euh, Abdoulaye Mbow kon nu jox la kàddu tàggoo gi rek muy tàggatoo bu dul tàggoo euh, ba beneen yoon beneen jamono bégg nañu ci yow waa Xewal gi TV euh, jërë ngeen jëf. macha allah kontaan trop maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax di leen xamal na def ngeen lu am solo euh, ndax li bis bi tey bis la boo xam ne njëriñ la pour ñëpp njëriñ la pour askan wi njëriñ la pour réew mi te ñëpp mënuñ fee teew kon nag bu fekkee am na benn. organe de presse boo xam ne ñëw na pour jël li tasaare ko ñëpp déglu ko loolu lu am solo la te bokk na ci tasaare njàngaleem Mawlaay Seex al Islaam Alaaji Ibrahima Ñas radiyallaahu taala anhu parce que mbooloo mi ay taalibe Baay radiyallaahu taala ay soppee Baay ñoom ñoo fi nekk te fu ñu nekk li ñuy feeñal mooy li ñu nampee ci Baay li ñu dundee ci Baay li ñu royee ci Baay kon ku fi ñëw euh, euh, jël image bi jël liñ fi taataan Euh, donte ki ñu koy taataanee jaamu yàlla bu xeebu la boo xam ne li muy wax sax cofeel la am ci li muy wax waaye waxut ci xam waaye dafay wax ci kaw euh, cofeel te loolu ñu ngi ciy déglu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal di leen ñaanal yàlla yàlla may leen yokkute ba ngeen yegg fi ngeen bëgg a yegg yàlla musal leen yàlla defal leen jàmm barke bi wàcc ci bis bi ak leer yi wàcc ci bis bi yëpp yenn leen yàlla defal leen ci cër bu gën a lëw كبرك القران بركه انت محمد بركه شيخ التجان بركه مولاي الشيخ الاسلام الله ابراهيم نصر الله تعالى لي دال موي كاد ييغا خا خني موم لا امون بور تيجي والسلام عليكم ورحمه الله jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur Xeweul gi TV lii lañ leen jëlaloon tey ci cérémonie officielle bi ci euh, Taïba Niassène di dëkk bu sell bu tedd doon waxtaanee juddug Maolana Cheikh Ibrahim Niass Baye àndoon ceeg al muxaddam al imam euh, imam euh, Abdoulahi Mbow bàyyi ko fee ci Casamance di leen jox dig daje di leen ñaanal gàmm ak jàmm jërë ngeen jëf.